asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baal ñu paax di leen baaraax te ñaan yàlla mu boole ñu jégal tey nag dañ koy indiwoon woon aw waxtaan waxtaan bi nag xam naa ne ab tàmbali la di maanaam introduction di maanaam introduction ci ñaari waxtaan yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam nga xam ne li ko tax a jug rek mooy yi nga xam ne moo daan tax a jug waxtaan yi jiitu di lislaam rek di diine yàlla ji xamna bi nak dañ ci am ay leral yuñ ci bëgg leral yo xamne ne ay leral la yu yaatal ci waxtaan yi nga xamne ñu ngi ci kanam moy ci li ñi faral di wax jamono bu ne di wax na ñun li ñi wax deug deug liko ko juk moy xamal nit ñi ne yi ñu nekk di ko dund lu ci ëpp du diine lu ci sos képp la ci diine mu leer naa ñu ne diine yàlla ji moom di lislaam benn yoon képp la fenn fu muy xaajee ci biiram amut ngir nit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci loola ràññeewuñ la aju ci loolu ñu mën koo xam bam leer leen ndax am na foo xam ne moom suñ fa yeggee réccu moom day wees te loolu sikki saaka amu ci yàlla nag ci boppam diineem li may wax ne diine islaam lu diine yonent bi du diiney saxaaba yi du diiney fuqahaa yi du diiney mag ñi du diiney kenn ku dut yàlla diine yàlla képp la te diine ji it yàlla nee na yonent bi nee na képp moo ci am te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ ne nee na it la muy waxit ci alquran képp lay dellu ndax moom ndawul yàlla képp la comme ni ko yàlla waxee ci alquran wa ma muhammadun illa rasulun xad xalat min qablihi rusul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ndawul yàlla képp la comme li yàlla di wax ci alxuraan wa maa aateekum rasulu fa xuduuhu wa maa naheekum anhu fantahu noonu ko yàlla di waxee ci alxuraan nga xam ne ndawul yàlla lim leen indil na ngeen ko jàpp lu mu leen tere na ngeen ko wan ginnaaw baatu ar rasul la wax te yàlla wax na rasul lan mooy waru garam mi nga xam ma ala rasuli illa al balaagul mubiin ndawul yàlla dara waru ko lu dul jottali jottali gu lañ ko yónni kon moom ñëwu fi ngir di indi yëfu boppam te amul it yëfu boppam ndax moomu diine ji te diine jooju di lislaam ba àdduna sosoog léegi kon ni ko nit ñi jàngalee di wax ne diine yu jugee ci asamaan ñaari diine wala ñetti diine yu jugee ci asamaan moom amut ci kaw suuf diine ju jugee ci asamaan benn kepp la te mooy lislaam te maa lu tàmbalee ci aadama ba keroog àdduna tukki benn diine jooju képp moo fi ne te loolu mooy diine yàlla te it dafa am loo xam ne nit ñi seen bopp maa dama ragal ne dañuy nax seen bopp nax sa bopp mooy yow ngay dund di tuddoo diine yàlla di islaam te suñ la waxee yàlla nee na nga naan dee diingat rek wala nga naan beneen diw nee na yooyu yëfu caaxaan yu toll noonu ci kaw suuf nit ku koy def ba noppi di wax na ku gëm yàlla su dee nit la war na bàyyi kooku war na bàyyiwaat xel boppam diine ji moom diine yàlla kese la waxu kenn du ci dox waxu kenn amu ci benn pouvoir kenn ku ci mën a soppi dara wala kenn ku ci mën a saxal dara amut du kenn nag bi fi yoon salaa salaam bàyyi kook léegi lépp lu ci waay dugal ak lu mënti doon lu ne ak ku ko ci mënti dugal ak ku mënti doon ku ne lam ci dugal bidaa la ci diine te di yoon salaa jàngale wax na kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaatin fi naar lépp luñ sos lu ne ak réer la te réer gu ne safara la jëm te sos moom ñi koy def sax damay ragal na xëy na suñ borom a leen natt ñuy sos rek te it li yooyu ma leeral ci kenn ku am ndigalul yàlla ci lu wér di sos dara ci diine moom amut comme ni ko nit ñi waxee ndax yàlla soo baat ma sosoog léegi yonenti yàlla Isa yonenti yàlla Muusa ak yonenti yi leen jiitu ma aleyhimu salaam ñoom ñëpp suñ borom l'islam kep la leen doon jàngale loolu l'islam kep la leen doon jàngale lo te l'islam nak du lenn lu ak njébbal nga xam ne diine suñ borom dañu ko jox ngir mu ñëw di nitel nit ñi nitel nit ñi moy lan moy nit ñi suñ borom ma leen bind suñ borom ma leen suñ borom moy leen bind lu war ci ñoom yépp moom moo ko ci def ba noppi na leen fexe leen balaa ngeen dee ngeen delloo ma seen lépp loolu mooy ak nite nga xam ne ku dund ba dee te defoo njébbal googu yow sa dund échec na ko ni ma koy faral di waxee ci jamono ku leen mën a gëmloo ne mën ngaa jaar ci weneen yoon yegg ci loola boppam lay nax benn yoon a tudd islaam amul weneen yoon diine ji liñ ci dolli dafa bari ñu bari dañoo foog ne dolli yooyu lu bees a tab beesul mën naa wax ne bi fi yéen sallallahu alayhi wa sallam la loolu tàmbali ba tey jii jamono bu ne nit ñi di gën di njàmbaas di sos di ci dugal ndax damay faral di wax ni ma ab ñal amul feu rouge ab ñal benn panneau bu la wax fii nga war a yem amu ci nit kii saa yu nit ñëwee sos suñ demee tuuti keneen dana génnee ci biiram sos leneen lu gën a garaaw loola suñ demee ci biiram ñeneen ñi danañ génnaat ci biir loolu sos leneen lu gën a garaaw loola te lu ci ëpp ka sosoon la njëlbeen gi moom daanaka moom nit ñi suñu demee di sos yeneen di ko bàyyikoo ci maanaam di ko jëlee ci yëfam maanaam ci moom lam sosoon day fekk na bàyyikoo na fi lu yàgg nga xam ne musiba képp nga koy dolli waaye du ko dolli dara ndimbal ndax soo ñëwee ci diini nit ñi damay faral di wax ne dañoo wàcc yoon wa lu yàgg tëyguñ ko wàcc yoon wa mooy yàlla moom su fekkee daa jàngaleel boppam ne aw yoonam lenn la ba noppi tere ñu ñu xaaj ko ba noppi wax ne ku ko xaaj ku ne bokkaale kat nga ñun ñu ñëw indi ay xaaj ci biir diini ba noppi di bëgg a tuddoo lislaam naxuñ kenn suñ bopp képp la ñu nax ku dem ci alxuraan da nga fekk suñ borom dana wax loolu mu doon lu leer nañ bi wax ne muniibiina ilayhi wattaquuhu wa aqimu salaata wala takunu min al mushrikiina bi muy leeral bokkaalekat yi la bi muy bi muy leeral woy bokkaale yi lan la wax mooy ñi nga xam ne dañoo xaaj seen diine def ko ay xaaj xaaj bu ci ne di ndamoo yoo xam ne min allazina farraxu diinahum wa kaanu chiaan kullu hizbin bima ladayhim farixu soo ñëwee ci biir diine li ci jiitu xaaj yi ci jiitu li ñuy wax ay sunni ak chiit li ñuy wax sunnit ak chiit loolu ci boppam nekkul lu yonent bi jàngale du lu yàlla jàngale boppam ndax damay wax ne diine ji suñ borom sàmm gim sàmm alquran ci sàmm googu ci la sàmm diine sàmm gim sàmm alquran ci sàmm googu la sàmm diine sàmmut leneen leneen lu yàlla joxe garanti lu dul alquran amut te alquran jooju ku ne mën na cee yeewul boppam ndax yàlla tegtal yi ñu ci joxe dafa leer seetantal la ci joxe xelaat xellu seetantal xelaat xellu li wax afalee tadabbaruuna alqurana am ala qulubin aqfaaluha كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أمنا ينن ييغا خا نما سون بروم موتي واخ ميم سو ديمي سي القران سي سوره الطلاق لي واخنا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا nga xamne limay wax batay ci la koy delo yalla borom xel lay waxal bi na jine limay xaj bu ci ñeuk moy li ñu indi li ñu wax li ñu wax sunnisme ak shiisme loolu du nekkul lu yàlla jàngale du lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale te wuutale boo xam ne ña nga xam ne ñoom ñoo ko fi indi mooy li ñuy wax saxaaba yi nga xam ne wuute gi fa mu tàmbalee wuute gi fa mu tàmbalee du woon wuute ci diini wuute politique la woon wuute bi politique la woon duñ ko leeral nag dañoo dem ba mu yàgg maanaam diine tàbbi ci waaye yow léegi nit ki day judd rek ñu ne ko yow sunnit nga wala nit ki judd ñu ne ko yow te moom fan la sunnit ak maam moom fan la jëlee turub sunnit wala kii fan la jëlee turub chiite duñ ko ko leeral te loolu wuute la woon ñu doxoon ci ay nit waaye fexe nañ ba tàbbal ko ci diine ji nga xam ne yow da ngay judd rek yow gàlloo étiquette boobu leneen la ca topp mooy li ñuy wax ngir ci diine te ku ne war na xam ne ngir moom ay buuru àdduna ñoom ñoo daan jël njàngaleem nit saxal ko imposer ko seeni nit imposer ko seeni sujet te loolu dem nañ ba jàpp na ci diine la bokk te lu ñu sos ci diine la su noppee yooyu yëpp danaa ko leeral leneen la ca topp mooy li ñuy wax ñii di wax naan ñii ay suufi lañ ñii ay salafi lañ kenn mënu laa wan benn preuve ci alxuraan lii firndeel salafi wala lii firndeel suufi amul amul preuve loolu du diine yu nit ñi sos la ci biir diine diine ñi ci nekk مسلم يا الله على وقت القرآن وجاهدوا في الله حق جهاده حق جهاده هو اتبعكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سميكم المسلمين من قبل وفي هذا فوق البرية بنن توف بوتي واي منو تدو بمن تدون بني لوم سوس لا ديكو دوخال تاريخ يي ني واخ ني يالا مو في اندي نيتام ييكو سي بوبام جانغيلوكو الاسلام mu jàngale lislaam ba noppi ay nit ñëw fi ginnaawam saxalal ko aw yoon waaye benn nitu yàlla ku am ndigalul yàlla di sosuwu yoon amut ci kaw suuf ñi ci nekk ñépp li ñuy dund jàpp nañ ne la te lañuy ñuy dund du daraay diine ndax yàlla wàccewu ci benn preuve te luy te damay faral di wax lu yàlla wàccewul benn preuve ku ko mënti gëm ku ne la nga gëm erreur ku ko mënti gëm ku ne la nga gëm erreur la yéen sallallahu alayhi li mu wax dafa leer li ko yàlla li yàlla wax ci alxuraan dafa leer yàlla dafa wax ne na alladina farraxu diinahum wa kaanu chiaan lasta minhum fii cheyin gaa yi nga xam ne dañoo xaaj seen diine def ko ay xaaj bokkuloog ñoom dara loolu waxtaan yi ci kanam leeral nañ ko ci ay xeetu chemin di ko ci misaal bokkuloog ñoom dara lu yomb la nit ki su waxee ne man sunit laa wala kii ne man chiit laa moom na laaj boppam wala mu dem gëstu li boppam ndax yeneen bi moom sunnit la woon wala chiite la woon te soo ko gëstoo da nga xam ne du ci woon moom yooyu du woon ci benn moom ndax la ko juróon ay mbiru xilaafa la rek ñun kii lañ àndal ñii ne ñun ñu ni maa yëpp lañu boole ñii ñoom ñu ne ñoom kii rek lañ àndal te xilaafa yooyu li leer woon ñu ni ma ko waxee jamono bu nekk yàlla wàcceewu ci benn preuve jàngalewu ko yónni sallallahu alayhi wa sallam jàngalewu ko dañ naan yàlla jàngalewu ko yéen sa laasalam suy bàyyeekoo na ko di wuut loolu yàlla jàngale wu yéen sa laasalam it jàngale loo xam ne la ñoom seen biir ñoom ñoo waxtaan ba déggoo jiital kenn ci seen maa jiital kenn ñoom ci seen biir te loolu am na ñu ci ànd am na ñu ci ànd loolu moom lu leer la yii nag nit ñi lii dafa war a leer ci ñoom ñu xam. xaj yi nga xamne mo nek ci bir diin te len lu ci ne doon lo xamne nit ñe ko duggalal seen bop waye nekul lu yàlla wacce ben preuve te yéen salaa salaam jàngale wu ko ndax yunus sallallahu alayhi wasallam li yàlla digle kep lañu ñu digal li nga xamne mom lu yàlla daganal la daganal lu yàlla aramal la aramal te damay wax ne diina ji ba diina ji mat jëf jo xamne jëf gi dana jur njëriñ ñak gee jëf di jur lor loolu mom yàlla kep koy digle yéen sallallahu alayhi li nga xam ne ñun moom la ñuy digal ñun ku ko jëf ku ne dana la jural njëriñ waaye ku ko bàyyi du wàññi leen yàlla noonu la tëralee diine ndax yéen sallallahu alayhi wa ndaw képp la yàlla la ko jottali loo te yàlla lam koy jottali loo mooy ay mbiru boppam lam koy jottali loo nga xam ne maa lam koy leeraloo mooy diine ndax yàlla moo wax moo waxal boppam ci alquran ne wa maa anzalnaa alayka alkitaaba illaa li tubayyina lahum alladi ixtalafu fii wax yéen salaa sallam ne ko wàcceewuñ ci yow téere bi lu dul ngir mu ñëw di leeral li nga xam ne nit ñi dañ cee wuute nit ñi ne da ngay dégg ñuy wax naan maa wuute xeet yu yërmande la wuute xeet yu yërmande de loolu wérul du diini loolu du diini ndax soo demee ci alquran yàlla xamal nañu ne téere yi nga xam ne moom la daan wàccee li leen li leen maa li taxoon mu ko daan wàccee ci ambiya yi moo doon ngir mu ñëw di àtte diggante nit ñi li nga xam ne dañ cee wuute li mu wax ne kaana annaasu ummatan waahidatan fa baasa allahu nabiyiina mubashirina wa munzirina wa anzala maahumul kitaab bilxaqi li yaxkuma bayna annaasi fii ma fii fiihi kon loolu moom lu leer naññi la leneen li ci topp mooy li may wax ngir nga xam ne ay buuru àdduna ñoo ko daan saxal ay nit la ñoo xam ne gëstu nañ liñ jégg loolu lañ jàngale am ci buuru àdduna yoo xam ne dañuy jël am njàngale imposé ko seen nit nit ñi dem ba jàpp ne loolu ci diina la bokk te bokk ci te li may wax sax leneen li yoo ne danaa ci leeral li ma doon wax sànq ci ginnaaw ci wàllu xel yàlla moom day wax ne borom xel lay waxal di wax na yéen di wax ne maanaam yéen ñi nga xam ne di wax ne maanaam bàyyi leen xel yàlla yéen borom xel yi nga xam ne da ngeen a gëm ndax yàlla wàccee na ci yéen ak fàttaliku. damay wax ne diine loolu lu mat a bàyyi xel la xam nga diine yenn saa yi da ngeen dégg nit ñi di wax naan diine ji xel bokku ci waaw su si xel bokkul te yàlla na moom borom xel lay waxal kon lan moo ci bokk. ndax dañ naan diine ji dañ koo tabax ci toxal waaye tabaxuñ ko ci xel waaw léegi su fekkee ne léegi dañ koo tabax ci toxal naka lañ mën a amee ay wuute su fekkee ne dañoo wax ne léegi man damaa bind ab aayab alxuraan ñeneen ñeenti nit wala lu ko ëpp kenn ku ci ne bind même aaya alxuraan bi ñu wuute ci suñ bëggee xam ndax aaya bi wér na wala wér duñ dellu ci suuf ba fekkee dañuy toxal toxal kay su dee toxal rek la da ngay xool ci barab bind waaye ndax léegi ñeenti dëgg mën naa ne walla lu ëpp ñeenti dëgg mën naa ne mënut nekk dëgg moom naka jekk benn rek lay doon te dëgg gi mooy dëgg gu yàlla gi lu mu mënti doon lu ne ci diini suñ ci bëggee xam lu leer te ñu bëgg ci xam lu wér dañuy dellu ci téereb yàlla bi di alxuraan téereb yàlla bi ku ci bañ a dellu ku ne soo ne yow ak njub ñor na la it naxoo kenn sa bopp rek ngay nax te téere bi lu ko fi indi mooy régler suñuy wuute suñ boroom wax na ci alxuraan ba tey ne wa ma axtalaftum fihi in cheyin fa hukmuhu ila allah yooyu ñëw na ci yeneen vidéo yi nga xam ne mu ngi ci kanam ñoo ngi ko ciy gën a leeral yàlla borom xel lay waxal nit ki xelaatee tax mbir yi di ko leer yàlla lu wax wattaqullaha wa yuallimukumullah nee na suñ ko bàyyee xel mu xamal ñu te ñan lay bàyyiloo xel boppam borom xel la wax fattaqullaha ya ulil albaabi alladina amanu xad anzala allahu ilaykum zikran boroom xel yi nga xam ne dañoo gëm ñoom neex nañu ko bàyyi xel yàlla boroom xel yi képp lay waxal képp ku lay wax naan la diina juddu xel téere yam bind ci xelam képp la sukkandiku bind ko ndax su fekkoon ne lu la du wuutee keneen loolu mënta dëgg moom lenn rek la yàlla boroom xel yi képp lay waxal. li may wax sànq yàlla joxewut benn tegtal ci alxuraan na soo ko bëggee xam dem leen ci mufassiruuna yi wala muhaddisuuna yi wala fuqahaa yi benn tegtal bu mu ci joxe amut li may wax sànq settantal xelaat xellu weesu téere bi moo wax ne maa farratna fi kitaab min shay téere bi moo ne bàyyiwoo ci dara léppam ci biir nit ki kay day wax ne ah lii de xam naa fu mu ne wala lii xaw ma fu mu ne واخنا في ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء واخنا في ني ما واتي نانتي ياو تيري بي غير مي ليرال بيب مير كون نا كيب كي واخنا ان يالا ديك واخنا الفران ليب نيكو سي نانغام نانغام مي دور كين كات يالا رك لاي ويدي لي مي واخ نا جامدو مان لي مي واخ موم كوكو ويدي du man ngay weddi yalla ngay weddi ndax man waxuma samay waxu bop waxu yalla kep lay wax yalla nak limu waxal bopam dafa leer yii nag loolu nag moom fa wax lo sa wax ma sax ci fi ci rew mi way fu mën doon ci aduna àdduna rawati na ci rew mi mom di senegal so waxe deug so ko waxe ñu ne day dinga suñ mag ñu bax ñi nangam nangam te man damay laaj ba mag ñu bax ñi dañu nekkon ci leneen lu wuuteeg islam wala la ndax nit ki mën na nekk ci l'islam ba nopi di bañ waxu yalla xam nga lolu yenn wut maanaam ñii tudd ñii ñii évoqué naan mag ñu baax ñi la mag ña neewoon sa neewuñ ci ndax dëgg-dëgg rek la te yàlla dafa am ay jubluwaay yoo xam ne suñ nit ñi suñ ci yeewu woon bëri na doxalin yoo xam ne duñ ko am damay faral di wax ne baatub yàlla yàlla xam nga nit ñi sax ci bokkaale yàlla gi nga xam ne ci lañ ne ak sax ci wutal yàlla dend gi nga xam ne ci lañ sax dafa am yo xamne ay baat la rek moy baat yi suñu borom di tuddu ci alquran baat yooyu suñu ko firiloo woon fekkoon nañu koy firiloo fekk su fekkoon nañu koy firil te deug deug baat ya la muy tekki kon am na yoo xam mënu sax ak fu mënti don ci aduna bi su ngeen ko don leral amna lo xamne xam ci sax comme nima ma ko ñun diine di baat bi kep maanaam baatu islam kep da ngay ñew fi laaj li muy ñu naan la jamm lay tek te lo jamono bu ne mako firiwul jamm ak njébbal lay tekki soumission te nit ki soo ko waxoon su su fekkoon ne nit ki xamoon na ne diine ji moom njébbal lay tekki kon dana xam ne moom am na kon lu ko war diggante moom ak boromam ndax njébbal du ay xolo koy li wax ay cër a koy def di wax naan man jullit laa wala man nàngam laa déedéet du foofu lislaam dundin la doxin la dundin la li yàlla wax ci alxuraan naan ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ما ام كو خما داي ساكو لودول اك نجيبل جابي لول دين لو خما دا جابي دين لودول اك نجيبل خما من نغو فيلي سانس بي من نغو فيلي باد بي رك ما ام كي ساكو لودول الاسلام جابي كو ديني يالا نينا دنجو نانغول موك تايت بيس بنتي تي واي بيرتي لاي بوك waaye ki nga xam ne it jàppewut ak njébbal mooy njébbal gi nga xam ne war na ko diggante ak boromam jàppee lu dul ak mu jàppee lu ak njébbal diine yàlla it nee na du ko nangul mukk te bis penc it ci mooy perte rek lay kon loolu lu leer naññ la te yàlla damay wax ne baatu yàlla comme ni may waxee ci lislaam baatu bi yàlla lan lay tekki yàlla mooy kan yàlla mooy ku ñu war a jublu mu jarañu suñ lépp nga xam ne kon ñun ñii képp kuñ jépp nga xam ne ñun ñi maam képp kuñ jublu wala lépp luñ jublu lu yàlla lu ne loolu ñoo ngi koy def dend ci yàlla képp kuñ jublu wala lépp luñ jublu mu jëriñu suñu lépp lu dut yàlla lu ne loolu ñoo ngi koy jàppee ak dend ci yàlla su dee xaalis la su dee nit la su dee lu mu mën ci doon la ndax nit ki lépp lu mu jublu mu jaral ko léppam loolu képp lay jaamu te nit ki li muy jaamu mooy yàlla nit ki lépp lum jublu mu jaral ko léppam si yàggee dana ko moom te nit ki lu la moom lu ne mooy sa borom nga xam ne kon nit ki dana am beneen dub yàlla boo xam ne da koy jël di ko dendaleeg yàlla mi nga xam ne moom moom mbindee fi bindi am beneen borom bu yàlla mi nga xam ne moo bind mbindee fi loolu waxtaan wi ci kanam sa ñoo ko ci loolu waxtaan wi ci topp incha allah leeral nañ ko ci nga xam ne ko nit yii dafa doon loo xam nit ki ci boppam da ko war a xam te nit ñi tàmm nañ loo fi wax lu mu mënti doon rek nee na sëñ diw sàngar nee na diw nee na diw nee na gis nga yooyu ay nax gise la ku leen ko mën a gëmloo ku ne dalee ne ndax moo xam sëñ diw ak ku mu mënti doon suñ ne nitu yàlla laa ku mënti doon li may yàlla li may ci yàlla ci yàlla na nitu yàlla amu yàlla niru amu fa damay wax doon rek a doon wala doonoo wax ne li ñuy wax wàllu yub li ñuy wax wàllu yub yàlla ci yoonub yàlla lay jaar li islaam du jaar ci weneenub ñàll wu mënti doon weneen wala yub yàlla ci yoonu yàlla lay jaar te kan mooy wala yub yàlla mooy ku dem ba jébbal léppam boromam loolu leeral nañ ko ci waxtaan yi jiitu kon am na ci wax yoo xam ne jarut di sonn képp ku ko mënti wax ak lu mu mënti ak ku mënti doon ku ne da lay ni réeral di leen wutloo ay dend ci yàlla soo demee ci alquran yàlla wax na ko yàlla di wax ne waxaala alladina kafaru lan numina bi hada alquran wala billadi bayna yadayhi ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجه بعضهم إلى بعض الخول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. دي وقت ديجنت سيرين سيك طالبي دي في نك دول سيرين سيك طالبي رك من وقت عن كري دي وقت كونفرنسي موم دي بوك تا لي ني وقت دارو لا مارو دوكو لودول نيب دغ غير لان دي جاي آية يالله دي كو جندي لي وقت لي يا وقت ديما ديكو جاي نيغو نيو ولا نيغو دويا دي موي لان ay nit ñu leen wax ay soñ soppe lañoo wala nit ñi leen di joxe weccat ak yooyu lañ jàpp ne loolu rek war na mëna tax ñun ñu taxaw fi taxaw di lay duñ wax duñ wax waxu yalla de dañuy lay lu fi waaye wax mi dëgg lu ne da nga gis ay laykat professionnel yu génn ñom di lay ta lay ga yépp la ko waral sam ay intérêt motax suñu borom ci bopam di wax ne manam talibé dañuy wax sëriñ ci na leen lawlaa antum la kunnaa mu'miniin su dul woon ak yéen ñun ay woy gëm la ñuy doon lii am na benn waxtaan yi ñu def bu tudd lettre à tous les disciples toute confession confondue boo xam ne leeral nañ ci bii nga xam ne leeral nañ ko ci mu gën yaatu ndax damay faral di wax ne alquran koo gis mu koy firi tàmbalee baqara jëm naa yeewu ci alquran ay thème la soo bëggee firi ko mu leer del jël par thème di ci wax muy wax ne képp koo gis muy firi alxuraan tàmbalee ci baqara jëm naa si yeewul ci alxuraan alxuraan ay thème la yoo xam ne suñu borom ay thème lay développé ci biir loolu nag kum soob mën naa dem gëstul ko boppam ci wàllu sëriñ ak taalibe comme nii ma koy waxee am na benn waxtaan bu buñ ci def boo xam ne booboo gën a yaatu nga xam ne tem boobu lañ ca développé nga xam ne taalibe yi dañuy wax sëriñ si ne leen sudul woon a yéen gëm la ñuy doon sëriñ si wax taalibe yi ne leen xaala lazina stakbaru lillazina xaala lazina stakbaru lillazina tudifu an nahnu sadadnaakum an il huda ba'da is jaakum bal dañuy wax taalibe yi ne leen ndax ñun ñoo doxoon ak seen de su boobaa su dañ naan ndax ñun ñoo doxoon seen digganteeg njub gi ginnaaw bi mu leen dikkalee suba maan taalibe yi ne leen waaw sëriñ si ne leen déedéet yéen kay li am mooy yéen ay woy tooñ rek ngeen woon yéen ay saay saay ngeen woon nga xam ne ñi ngeen toppoon fii lu nit wax di waxu yàlla ñu leen wutal ay lay su ëllëgee foofu lañuy ñuy mujj ak yéen te it noppeekul nag taalibe dañuy ñëwaat na leen waxaa lazina stud'ifu li lazina stakbaru bal makru layli wan nahaari id taamuruunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andaadan dañuy ñëw ne leen taalibe yi dañuy wax sëriñ si ne leen yéen loolu ngeen doon fexe ndax yéen ñu daan digal ñuy weddi yàlla weddi yàlla mooy de mooy fi wax ji këpp mooy fi wax ji tàmbale waxaala lazina kafaru lan a bi hadal bi hadal quran ndax dañ lay wax ne la yàlla nee na ñu ne kii li mu wax wérul lii déggin la wala nàngam te nee naa ay déggin amut ci waxu yàlla ay li ñuy wax ay déggin yoo xam ne day soree loolu comme ni ko nit ñi waxee amut de waxtaan wii mujj rek li nga xam ne moo mujjee génn ñoo ngi ko ciy wax alxuraan amut ñaari déggin amut fukki déggin amut ñetti déggin amu ko de benn déggin la te yàllaa koy defal ku ko soob yàllaa koy defal ku ko soob du njàng mu bari du njàmbaar du dara ndimbalul yàlla képp la képp ku lay wut a layalal loolu day lay képp li muy wax du waxu yàlla ay sos la day waxal yàlla lu mu waxul ak ku mu mënti doon taalibe yi wax sëriñ si ne leen loolu ngeen doon fexe ci guddi yeeg bëccëg yi ndax yéen ñu daan digal ñuy weddi yàlla weddi yàlla weesu wut weddi aaya yàlla yi kii weddi waxu yàlla kay kan la weddi wut ko kay kan la weddi yow ko yenn saa yi am ñoo xam ne soo waxee dañ naan déet yow li ngay wax la ñuy weddi waaye weddi wuñ yàlla man su fekkee damaa wax samay wax kay ñu mën a wax ne sama wax la ñuy weddi man waxuma samay wax di waxu yàlla laay wax kon li may wax ku ko weddi rek yàlla nga weddi ndax loolu moom ngi ci alxuraan te ku dem ci alxuraan fekk ko ci loolu moom amul wérante mais wax ne kon yéen ñu daan digal ñuy weddi yàlla di ko wutal dend di ko wutal dend mooy lan mooy yéen ñu daan digal ñuy jublu leneen wala keneen ku dut yàlla mu jarañu suñ lépp xam ne képp ku lay digal nga jublu leneen wala keneen lu dut yàlla mu jaral la sa lépp mu ngi lay wutloo dend yàlla ci sa bopp nga xam ne yow kooku loolu ngay jublu moo xam xaalis la wala moo xam nit la ku mën di doon ci nit ñi suñ la waxee ne yonent bi la nee na moom nga war a jublu mu jaral la sa lépp yaa ngi jàppee yonent bi dend ci yàlla su dee ab wàllu la nga xam su dee ab wàllu yu la su ñëw suñu fekkee dañ laa digal loolu ci moom ñoo ngi lay wutloo dend ci yàlla te lu mënti xew yonent ba mu fi nekkee tegtalewu woon dara lu dul jëm yàlla ci wàllu yu yàlla bu wér laa wax nag waxuma wàllu yu créé yi déedéet wàllu yu yàlla bu wér bu ne du tegtal kenn kenn ku dut yàlla mi nga xam ne bind mbindee fi te moom leen kon lii dafay lu leer naa lu la ci waaye mën a wax lu ne ay création kese li ñuy wax naan ay salafi wala ni yenn saa si nga dégg ñuy wax naan euh, comme li wax naan li wax naan man sunna laay dund loolu yàlla jàngale ko yàlla lislaam la ñu dund loo wala wax naan man salafi laa wala kii day wax naan man suufi laa tarixa sàngam laa bokk nàngam yàlla jàngalewu ko ba tey waaw yàlla jàngale wu te damay wax li ñuy wax soufisme moom li ñuy wax tasawuf lim sos moom ci diine loolu kenn xamul sa nu mu toll liñ dugal ci diine kenn xamut nu mu toll lii du waxul làmb li may wax man lu ma dund la waaw loo xam ne dund xam ne ci aju waaw li wax yi ñuy ma yi ñuy ay fatoog yooyu ñu ci ndamoo loolu li ma ciy wax du loolu ma ci wax du dëñ waaw loolu wax naa man li ma ci def ci at yi ma ko def néew na ku fi ne laa wax def ko néew na su fekkee am na sax laay wax fii ci réew mi la ak feneen ku mënti doon néew na ku koo xam ne def na ci la ma ci def ci at yooyu ma ko def ay fato yooyu ñuy wax noonu ci maanaam ci wàllu yooyu te xam naa ne loolu taxut a yeewu nit ki la koy yee ci boromam ndimbal kepp la ak it bëgg dëgg nag di wër dëgg nag damay wax ne nit ki su bëggee jëriñu suy far na far ci yàlla lépp luñ la wax su dëppook waxu yàlla nga jël su waroog waxu yàlla nga bàyyi waaye kii wut far feneen ci furut yàlla kooku moo bëgg a réeral boppam wala di wax naan yàlla yàlla nag ma gindi waaye nag gindee fii nee naa loo ku bëgg a gindee ko du ko wax nag ma gindee fii loolu ku yeewu sa du ko wax yàlla danga koy bàyyee sa bopp moo xam li gën ci yow mu jaarale la ci loolu waaye di wut fooy far ak yooyu ku koy def ci ku koy def ci musiba nga jëm kuy far na far ci yàlla jeex na lu la waaye wax mu dëppoog waxu yàlla nga jàpp su waroog waxu yàlla nga bàyyi mu jàll lii nag lu ko gën a wér moom amut fenn ndax yàlla ndax yàlla li mu wax ci alxuraan li mu wax ci yéen salaa salaam gars yi nga xam ne dañoo xaaj seen diine def ko ay xaaj bokkul ak ñoom dara loolu lu leer nañu ndax kum ci mënti doon ku ne mën ci doon ku ne xaaj ba ngay tuddoo su dee ab tariixa la su dee ab mouvement la su dee ngir la su dee lu mënti doon lu ne rek mën ngaa xamal sa bopp ndax lu wér la ak lu wérul man su ma waxee ne man sunit laa naa laaj sama bopp ndax yéen sa laa sunit la woon koo laaj dañ la xamal ne du woon sunit am muslim la woon suñ la waxee ne suñ soo waxee ne man chiite la laajal sa bopp ndax yéen sallallahu alayhi wasallam chiite la woon soo ko laajee dañ la wax ne ab muslim la woon du woon ab chiite ndax damay wax ne ñun ñun ñu nekk ci biir lislaam ginnaaw yéen sallallahu alayhi wasallam suñ jëf yëpp ci yéen bi lañ koy àtt yéen sallallahu alayhi wasallam jëfam suñ jëfa ci suñuy wax ci yéen sallallahu alayhi wasallam lañ koy àtt yéen sallallahu alayhi wasallam ay jëfam ak i waxam ci waxu yàlla lañ koy àtt di alquran nga xam ne lenn lu ci ne daa am delluwaay te delluwaay ba ba ca mujj mooy alquranul karim amul leneen nag delluwaay ba ca mujj ci alxuraan lay dellu yum salaa suñuy wax naan sunna sunna ci alxuraan lay dellu ndax yum salaa sallam suñu borom da ko jottali loo nit ki su ñëwee na la man ngir sàngam laa bokk di wax na man malikit la wala shafiit laa wala hambalit la su su ñëwee nit su ñëwee nit su ñëwee wax la xeetu wax yooyu na laaj boppam ndax moom yum salaa sallam daa bokkoon ci benn ci yooyu déedéet loolu ginnaaw bi lañ ko sos ci diine kon ba tey lu ñu sos la li ñuy wax chiisme ak sunnisme ba tey lu ñu sos la ci diini ginnaaw yéen salaa salaam la fi am te lu ñu gi rek bidaa yéen salaa salaam moo ko jàngale lépp lu ñu sos rek bidaa te bidaa bu ne safara lay mujj nag nit su ñëwee ne man salafiste la nga ne ko yéen salaa salaam ndax salafiste la woon déedéet du woon muslim képp la woon wala mooy man suufi laa suufi laa man tarixa sàngam laa bokk yéen salaa salaam ndax daa bokkoon ci benn tarixa wala moom suufi la woon déedéet damay wax ne diine soxlawut baat yu bees soxla soxlawut baat yu bees lépp lu yoonu yàlla alxuraan da koo jàngale ci wàll yëpp waxtaan yi nga xam ne moo jiitu leeral nañ ko ci ci yu nga xam ne leeral nañ ko ci domaine yu baree baree baree baree bare lii dëgg-dëgg yi diine dëgg-dëgg yi diine wéetal yàlla képp la wéetal yàlla képp la moo tax suñu borom indi ñu fii dañoo bindoon ci benn melo indi ñu fii bëgg balaa ngi fee bàyyeekoo ñu delluwaat ci melo boobu nga xam damay wax ne lislaam juróomi ponk ya ñuy tudd benn ponk mooy diine mooy laa ilaha illallah googu mooy diine julli woor azaka aj màkka lépp ci laa ilaha illallah képp la lay yóbbu maanaam wéetal yàlla comme ni ma leeral naa laa ilaha illallah ci waxtaan yi ci ma maanaam ci waxtaan yi ci ginnaaw dëgg-dëgg lan lay tekki ndax loolu rek fi ne yàlla moom nit ki moom ñaar yii ñaari kuréel yii da ngay doon kuy wéetal yàlla wala nga doon ku koy bokkaale rek loolu rek fi mën a wéetal ko wala bokkaale ko diine ji nag ngir lan la ngir bëgg nit ñi dem ba wéetal yàlla ci léppam nga xam ne julli ci loolu la lay yóbbu leeral nañ ko ci waxtaan yu weesu koor azaka lépp ci wéetal yàlla képp la lay yóbbu loolu képp lay tegtal kon ngeen xam ne yii yëpp nit ñi di wax yàlla su waxee ci alxuraan na yón salaa salaam ñi nga xam ne dañoo xaaj seen diine daf koy xaaj bokkuloo ak ñoom dara kon loolu lu mën a yomb te kenn ku ci ne mën na cee àtte boppam nit ku ne it mën naa àtte boppam ci jubluwaayam nit ki moom kenn ku mu mënti doon ku ne lan la jublu mu jaral ko lépp su dee yàlla xam na su dee alal xam na su dee nit xam na moo xam miy jigéen moo xam miy njaboot moo xam lu mu mënti lu ci waaye jublu lu ne rek mën na koo àttal boppam fekkee nekkul kii nax boppam da li wax yi moom ñi koy weddi amaana ñett lay doon mooy ku réer te yëgul na dafa réer ak koo xam ne jàng na te amatul ràññee dañuy wax jàng taxut a jub déedéet du ku jàng te ràññee woo doo gindee ku jarut sonn ak ki nga xam ne jàng na amuk yeewu tuuti waaye nag bakkanam mën ko nga xam ne fu mu toll rek day bëgg moom yim nekk di ko dund di sax su dee ay privilège mu fexe ba privilège yi sax nga xam ne su sañoon moom dëgg du leer mukk waaye nag loolu ci kan lay doon mooy koo xam ne xel mi moom it nam war a mel melu ko am na ci ñoo xam ne ku leen di déglu ku ne sa xel moom maa sa xel jëfandikoo woo ndax damay wax ne dëgg ku ko mënti dégg ak ku mënti doon danga ko xam soo wéetee da nga xam ne lii ma dëgg nii soo soo wéet di nga xam ne ma dégg nii moom dëgg la léegi nag ginnaaw gi nag ci ngay commencé di refoulé su fekkee ne sa xol su ma su fekkee ne sa bakkan da laa mën nga xam ne yow sa bopp yow yaay wut nax sa bopp te damay wax ne dëgg moom man moom moo ko ñi koy déglu moomuñ ko dëgg dëgguk yàlla la damay wax ne ki koy wax ak ñi koy déglu ñoo ci bokk yem kenn moomu ko ci dëgg yàlla rek ko moom kon nit ki su fekkee ne moom bëgg naa jëriñu digganteem ak boromam na xool li yàlla jàngaleel boppam yéen salaa salaam leeral ko te yéen salaa salaam li muy leeral lépp ci alxuraan lay dellu lépp nit sax su ñëwoon ne la yonent bi nee na te la mu wax mu waroog li yàlla jàngale lam la wax bàyyil mu jàll ndax yàlla ci boppam moo jàngaleel boppam ci alxuraan ni musut yebal benn ndaw wala kenn kum solo lu dul bi mu ñëwee jàngale la muy jàngale ba noppi seytaane dugal na ci mbiram loolu yàllaa ko jàngale ci alxuraan wax wa maa arsalna min xablika min rasulin wala nabiin illa ida tamanne alxa seytaanu fi umniyatihi loolu alxuraan la yàllaa ko jàngaleel ko kon loolu kenn mucc ci yéen sallallahu alayhi wasallam jàngale na ba noppi bàyyi ko fi ma maam bàyyi koo fi ay nit ñëw sos ci leneen loolu moom du lu jomb ndax yàllaa ko jàngale te lu am la it keneen ku mu mënti doon di ab wàllu yàlla ñëw wax li muy wax mu doon lu leer bàyyi koo fi ay nit ñëw indi fi leneen loolu du lu jomb ndax yàllaa ko jàngaleel boppam kon loolu moom sikki sàkk kanam lii nag wax la joo xam ne ni ma ko waxee introduction la ci wax yi nga xam ne mooy li ci kanam am na ñaari vidéo yu nekk ci kanam yoo xam ne vidéo bi moom introduction la nga xam ne nit kii na ko déglu xam ko ndax lii kum leer ci yow rek wax yi nga xam ne mooy ci kanam su ñëwee da ko mën a xam ndax du jafe li ñuy wax lépp ci waxu yàlla lañ koy delloo waaw li ñuy wax nag gaa yi jàng nii nekk fii di maanaam di ñu wax di lay yooyu soo demee ci alxuraan yàlla la koy wax de damay faral di wax na sax yàlla soo demee ci alxuraan ñi jàng ak ñi mu xamal bokk sax ni mu leen woowee ñi jàng alladina utul kitab lay wax wala alladina aataynahumul kitab comme ni mu waxee wala in atayta alladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabihu xibataka wala mu wax fee ne alladina aataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alxaqa wa hum yaalamuna alxaqu min rabbika fala takunanna min al waaw ali wax ne maanaam ci fi dafa wax ne gars yi nga xamne ñom jàng nañ téere wax xam jox nañ leen téré bi ñom xam nañ téré bi comme niñ xamé xamee seen doom waaye nag dafa am benn xaaj bu nekk ci seen biir boo xam ne dañuy nëbb dëgg gi te fekk na xam nañ ko waaye mooy nag dëgg nag moom ci yàlla lay bàyyi ko te bokk wala bokk maam bu leen bokk wala bu maam bul bokk wala bu leen bokk ci ñi nga xam ne dañuy werante dëgg moom si kisaak amu ci ci yàlla lay bàyyi ko yàlla nee na daa gën a wóor lu mu mënti doon dund ndax li may faral di wax yéen sallallahu alayhi wasallam nekk na fi ba bàyyi koo fi kenn bindut xadiis ndax da moom si boobu da koo tere woon dafa wax bu ñu bind jëlee ci moom lu dul alxuraan ku bind jëlee ci moom lu dul alxuraan na nga ko effacé loolu moom moo ko jàngale suñuy wax buxaari ak muslim tënk yooyu ñuy tënk ci buxaari ak muslim loolu sa fàtte woon naa ko waaye tënk yi ñuy tënk ci buxaari ak muslim sax loolu lu nit ñi sos la ndax buxaari ak muslim kenn ku ci ne ci ñoom ñaar téeméeri at ginnaaw gàddaay gi lañ fi ñëw ñaar téeméeri at ginnaaw gàddaay gi loo wax nañu ne buxaari nee na wala muslim nee na lu bukhari muslim wax luñ dem di laajte la ñu wax leen ko bañ bind ko gess ko ba bind ko waye luñ leen wax lu ne su dëppoog li yalla wax ñu japp ko su woro li yalla wax dañuy bayyi mu lolu mom ci kessa ka amu ci ndax ñom ñaar téeméeri at ginaaw gaday gi ñom ci leen judd sax ñom ñaar téeméeri at ginaaw gaday gi ci leen judd kon amna ci lo xamne nit ñi su fekkee dañ ko bëgg gëm lo nga dem ba japp ne li lu mënul ñak ci diine la ay nax la yenn saa yi nga dégg ñu naan Buxaari ak Muslim ñoo ñu jàngal julli su ma suru woon ak ñoom duñ mën a julli duñ mën a woor loolu ñoom dañoo ñëw fekk fi jullee ko woor de kon maam ñaar téeméeri at yooyu nit ñi daawuñ julli daawuñ woor loolu fu mu am waaye fexe nañ ba gëmloo ñu ko ñu nit même ñuy jàng sax da ngay jëm rek jàng luñ wax ci téere nga gëm ko foo toogit di ko nettali te yow la ngay jàng doo ci xalaat te maanaam yàlla soo demee ci alxuraan ñaari lay tudd wa id aatayna muusa alkitaaba wal furqaana laallakum tahtadun nit ki loo jàng lu mu bari bari bari bari te doo xalaat yaa ngi jàngut yéen a yem ngay mel rek mooy loo dégg gëm ko te loolu nag musiba moom du ko wees yàlla borom xel lay waxal mooy koo xam ne lu mu dégg lu ne dana ci xalaat bam leer ko ndax nit ki ngir mu mën a am yaqiin faaw muy xalaat mooy li ñuy wax certitude li ñuy wax une ferme conviction pour nit ki mën ko am faaw muy xalaat te yaqiin nit ki su ko su suñ borom wax na ci alxuraan ne xadd bayyannaa laayaati li xaw mi yuuxinuun nee ay aayaam ñan la koy leeralal mooy nit ñi nga xam ne dañoo am yaqiin ba tey it bàyyi xel boobu ak xalaat boobu suñ borom wax na ne soo leen bàyyee xel yàlla mu xamal leen bàyyi xel yàlla dana fay leral jamono bu ne mooy lan moy nit ki di bàyyi xel yàlla ci lépp lu muy wax ak lépp lu muy jëf lépp lu mu gisit mu xol lan la ci mëna jàngé lu ko amal ngeen digënté ak boromam lépp lu mu déggit mu xol lan la ci mëna jàngé lu ko amal ngeen digënté ak boromam loolu moy bàyyi xel nga xamé dal da ngay bàyyi xel yàlla ci lépp ci say wax ak ci say jëf ak lo gis ak lo dégg loolu moy tax nit ki ragal yàlla ndax am jàng taxuta ragal yàlla am jàng taxuta a dédé soo jàngee te ràññeewoo yaa ngi jàngut su réewu leen li mag ñi daan wax naan jàng wërsëgu li ñu koy wax naan maa wërsëgu li nga xam li nga xam wërsëgu laa miñ mag ñi daan nañ ko wax waaye nag ëpp na solo loolu ndax am njàng moo gën ñàkk jàng waaye nag njàng it balaa mu laa mën a jëriñ dëgg ngay bàyyi xel sa bopp ak a xelaat ndax loolu mooy mën a tax nga ragal yàlla كودم تيلو مين مسالك دينا فيك سنتو با دي وخني ان الذي لم يخشى رب العالمين ليس بعالم ولا اطنا الفنون غاي ييغا خامني راغلو نيالا بني بروم خام خام دونت دانيو جيهالون فاناي خام خام ييب دونت دانيو جيهالون فاناي خام خام ييب سوني واخو نكي ليپ لي خام خام جان نكو بام جيه تا راغلو يالا يدو بروم خام tax te li nga xam ne mooy tax ragal yàlla mooy bàyyi xel yàlla yàlla dafa ne wattaqullaha wa yuallimukumullah dem ba fee ne inna macha allah min ibadil ulama xam nga da ngay bàyyi xel yàlla yàlla xamal la yàlla su la xamalee nag ci ngay doog a ragal te yàlla wax na ba tey it bàyyi xel yàlla yi ba tey mooy tax mu defar ñu ak ràññee li mu wax yaa ayyuha alladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan te nit ki soo jàngee te ràññeewoo munoo gindeeku mënoo gindee ko mënut nekk ndax li ngay gëm du leer ci yow te yàlla moom ba tey wax na ci alxuraan ne ne alxuraan ay aaya yu leer naññ la yu mu faram-fàccee ci dënnu gaa yi nga xam ne xam-xam dana dikkal te nee na nag loolu moom kenn du ko weddi lu dul woytooñ yi woytooñ yi mooy woy weddi wax na bal huwa aayaatum bayyinaatun fii suduuri lazina utul xilma wa maa yajhadu bi aayaatinaa illaa zaalimuun nga xam ne kon suñ boroom moom li mu war a wax yépp wax na ko diine ji soxlawut baat yu bees soxlawut dara soxlawut dara lépp lu ci war suñ borom tudd na ko ndax suñ jàppee ne dañoo war a sas yeneen yoo xam ne day mottali kon ñun dañoo gëm na waxu yàlla daa manqué rek leneen luñ ci boole lu wuuteeg li yàlla jàngaleel boppam kon ñun day mel ni dañuy wax ne yàlla moom li mu waxal boppam daa te yàlla nag weesu na foofu te loolu képp ku koy wax ku ne rek yow na la leer ne loolu ci say wax yaa ngi xeeb yàlla yow li may wax sax ci tasawuf li ñu sos dafa bari mooy xeetu zikar yi li ñu koy waxee wérdi yu bari yi nga xam ne dañ koo créé xam nga damay faral di leeral loolu ñu ñi dañ ko war xam suñu borom su waxee walillahi la li wax walillahi l asmaul husna fadduhum biha ñu may jàngee alquran nag leeral naa ko ci kanam leeral naa ko ci bidoo yi ci kanam xam naa ku ko xam naa ku ko siraan insha allah dana la leer li wax ne dafa am li wax ne maam ñeel na yàlla ay tur yu rafet nañ ko ci woo naka la ñuy woowee yàlla ci ay turam nekkul yor kurus gi xëcc foo toll naan ci yaa nàngam yaa nàngam déedéet du foofu yàlla ci naka lañ koy woowee dañ maam tur yooyu ay meloom la melo yooyu nag nit da ko war a jikko woowu diine du ay waxu kepp diine dund la loo xam ne nit ki da koy dund la mu sax ci moom am li ñuy wax jikko yu rafet jikko yi rafet du lenn lu dul yàlla yi nga xam ne nit war na koo mën a jikkowoo nit ki jikkowoo ko fexe bam sax ci moom yéen salaa sallam loolu la ñuy roy ci moom suñ borom suñu waxee laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawma al axir foofu kese la lan la ñuy roy ci moom mooy li nga xam ne suñ borom da koo ci moom nga xam nga xam ne yàlla yooyu ci yenn turam yi moom jikko woo woon suñ borom digal ñuy roy loola ca moom roy tur yoy bam dess lu mel ay mutakabbir ak muntakhim ndax tur yoy ben bu ci ne safan ba dañuy fexe mu sax ci ñun yalla moy mutakabbir moy ki nga xamne mom moy ki reey ki mom ñun naka lañuy roy yalla ci xeet wo moy safan ba moy di lu jamono bu ne ci kanamam ak ci kanamam mindeef yépp bañ a jàppee suñ dara lu dut ay jaamu yalla kep lu melni muntakhim maanaam suñ borom mooy aji fayantoo ji nga xam ne moom day fayantoo ñun su su fekkee dañu su fekkee dañoo bëgg a jikkowoo loola safaan ba la ñuy jikkowoo mooy di baale lu ñu waaye def ñu baal ko te jëmm yàlla ci tax lu ñu waaye def ñu muñ ko te jëmm yàlla ci tax comme li yàlla waxee ci alquran wa in aaxibtum fa aaxibu bi misli ma uxibtum bihi wala in sabartum la huwa xeyru lissabirin nga xam ne loolu ci boppam nit ñi dañ ko war a mën a xam alxuraan baat yi ciy jëriñi su ko nit ñi xamoon li nga xam ne baat yi la muy firi lañ ñu war di leeral bis bu ñu leeroon rek suñ doxin soppeeku lu mel ni laa ilaha illallah bi nga xam ne moo ci jiitu baatu allah ay subhanallah alhamdulillah nga xam ne baat yooyu moom la moom la war a leeral baat yooyu bis bu leeree ci ñun dootuñ bokkaale yàlla te dund gu dal la ñuy dund te lépp lu ñuy defit dootuñu sóor nga xam ne duñ ci sóor kenn duñ ci xalaat kenn ku dul jëm yàlla ji nga xam ne su boobaa lépp luñ jëfati day mën a sell te loolu nag képp ko wax na yaakaar naa dajeeg boroomam ëllëg dundin boobu képp la war a yor li mu wax ne suñ boroom li wax ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan loolu nag nit ki su bëggee doxee noonu doon koo xam ne yaakaar naa dajeeg boromam te war a jëf-jëf ju sell na fexe ba yii sax ci moom nga xam ne lépp lu muy defati ak lépp lu muy waxati lu ci sóor kenn ku dul jëmm yàlla boromam am na lu la waaye mënti wax ak ku ko mënti wax ak ku mënti doon wala ñu bind ko ci téere bu mënti doon bu ne su dëppoog li yàlla wax ñu jàpp su dëppoowut ak li yàlla wax ñu bàyyi mu jàll ndax li may wax ne nit ku mënti doon ci kaw suuf ku ne am na lu ñuy jàpp ci yow am na lu ñuy bàyyi ci yow mat googu yàlla képp a ko jagoo kenn kum mënti doon ci kaw suuf am na lu ñuy jàpp ci yow am na lu ñuy bàyyi ci yow kon loolu nañ ko xam mu leer ci ñun ŋàññ ñu xam ko di ko dunde am na loo xam ne waxtu wu leeree rek ñu xam ko di ko dundee suñuy dund jàmm rek la ñuy am li yàlla wax ci alquran man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa muminun fa nuxyiyannahu xayaatan tayibatan wa najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yaamaluun yoo xam ne képp koo xam ne yaa ngi jëf-jëf ju sell moo xam ngay góor moo xam ngay jigéen te fekk nga gëm yàlla suñ borom nee na dañu leen dundal dund gu teey jamono bu ne dinaa ko ne dund gu teey nag nekkul xam ne da ngay am alal dina gàññ déedéet dund gu teey mooy da ngay da ngay dund dund gu dal yu bari du la sonn ay stress ak yu xeet yi ñuy wax yii yëpp su du doon sa problème ndax lenn lu ci ne rek danga koy mën a delloo ci yàlla mi nga xam ne lépp ci loxoom képp lay def te it mu ne danañu leen fay yool yoo xam ne moo gën a rafet fuuf la nga xam ne moom ngeen doon jëf loolu nag pour alaxira la fii ci àdduna dana leen dundal dund ku teey waaye ci àllaaxira dana leen fay yoon yoo xam ne moo gën a rafet fuuf li nga xam ne moom ngeen doon jëf ci àdduna kon lii nit ñi nañ ko bàyyi xel xam ko suñ ko xamee njëriñ képp lay jur te it lii su leeree am na ci loo xam ne kenn dootul nangu ñu koy dugal ci loo xam ne du yëfam réew mi nag tàmm nañ lu fi su waaye waxee ay tariixa nii nàngam ñu commencé di kaas ak a wax te ñiy wax waxu yàlla képp lañuy ñuy wax gis su fekkee na day wax ne moom ab jullit la te soo waxee waxu yàlla mu tàmbali di gis boppam na xoolaat boppam te xam ne du ndax xam ne du ab jullit da koy tuddoo kenn kanaa ab jullit warul mën a bañ waxu yàlla kat waaye soo ne yàlla nee na rek ñu ngi suñu commencé maanaam loolu sa loolu nit dafa war a xelaat nit ki su fekkee da ngay wax na yow diine ngay dund te yow nga gis ne suñ ne yàlla nee na la ñuy wax na yàlla nee na day yàq yow sa dund yow kay war ngaa am xel mu rafet xam na kon yow li nga nekk ak li yàlla jàngale du benn ndax li nga nekk su fekkoon ne loolu la yàlla jàngale suñu waxee waxu yàlla kay dalay gën a dëgëral ca la nga newoon waaye du la déranger te lu ci ëpp nag ñii soo déggee ñii tuddoo di tuddoo ay Cheikh Ahmad Tidiane wala Sëñ Touba wala Cheikh Abdou Khadir Jeylaani wala keneen ku mënti doon ci nitu yàlla yi ku mënti doon ci àdduna rek lu ci ëpp lañ neewoon sax ak li ngeen ne xam nga xam ne maanaam dara du leen boole dara du leen boole ndax li leer te wóor li may wax jamono bu ne yàlla musul jox ndigal ci aw yoonam nit ñëw fi koo xam ne daa am ndigalul yàlla di jàngale weneen yoon wurut islaam amut suñ borom su waxee ne wabtaxu ilayhi wasila lu mu ci teg wa jaahidu fi sabilihi ci lan ngeen di farlu ci yoonu yàlla di ci yoonu wasila bi wasila bu am yoon amut yun salaa salaam wasila la woon yonent bu mu mënti doon wasiila la woon ci diggante nit ñi ak seen borom mooy leeralal leen naka la ñuy def ba mën a jébbal lépp seen borom loolu képp leen fi indiwoon ñëwuñ fi woon di jàngale seen bopp waaye di wane seen bopp loolu amul fenn kon nit ñi nañ xam liy dëgg xam li leen jëriñ ñu sax ci wax yi nag xam jamono bu ne dinaa ci faral di wax loolu li ko waral mooy na kenn ku ci nag xam koo xam ne daal gëm yàlla ndax vraiment vraiment ñett ñu moom ñetti kuréel yii loolu nag lu ñor yàlla la soo demee ci fatiha yàlla li ñuy wax ihdina siraatal mustaqim bi wax siraatal lazina anamta alayhim gayril mawdubi alayhim wala daalina ñett yooyu loolu lay misaal soo demee ci njëlbeenu baqara loolu la ciy misaal mooy ñetti kuréel yooyu nit ñi weesuwuñ ko ñi gëm ñu weddi ak naafeq yi weesuwul loolu nit ki benn da ngay doon ku gëm wala nga doon ku weddi wala nga doon naafeq ku gëm nag moom waxu yàlla du ko moytu fenn te ndigalum yàlla yi duwut leen lu mu ciy jàpp ak lu mu ciy bàyyi xoolati lu ko arrangé lu ko arrangé wut li ko yàlla wax daal noonu la si maan ci loolu lay ne su ko leeree na mënu koo boole nag jarut muy sonn su ko leeree na mënu koo boole jarut muy sonn kon nag lii na ko nit ñi xam yàlla moom li muy jàngale lu leer la neexalut kenn ci lenn li gën ci ñun la ñu digal li bon ci ñun la ñu yàlla li gën ci ñun la ñuy digal moom lu maa ngi loolu la ñuy digal lu bon ci ñun rek la tere te lii kum leer ci yow am na ci loo xam ne dootul doon sa yitte kon lii nañ ko xam fexe maa mu doon suñu dund ñun ñu di ko dund mu sax ci ñun ndax suñ koy dund jàmm képp lañu am dara du ñu sonal ci kaw suuf dara du sonal ci kaw suuf diine ni ñuy jàng maanaam diine li ñuy jàngal mooy ni ñuy dundee fii dund ku dal mën a jëriñu fii ci àdduna mën a jëriñu it ci àllaaxira te loolu waxtaan yi weesu leeral nañ ko ci bu baax a baax a baax kon di xam ne di wut a tuddoo lenn te la ngay tuddoo dëgg-dëgg doxee woo ko ku koy def sa bopp rek ngay nax waxtaan wii ci kanam ñu ngi ciy leeral loolu naxante moom fii suñ biir mën na feeñ te sax du ñëpp la ñuy nax nag waaye naxante fii si suñ biir nii mën naa ne waaye yàlla moom du ñuy nax yàlla moom du ñuy nax am na ci nit ñoo xam ne sax suñu borom defal na leen dimbal googu ndax leen fa yombut kon am na ci loo xam ne nañ ko bàyyiwaat xel di ci xalaat na kenn ku ci ne xool boppam xalaat boppam xool doxalinam bañ a nax boppam tuddoo loo doonut benn njëriñ amu ko di wax ay jullit lañ nangam nangam loolu nax sa bopp la ci adduna bi fépp nag lay wax sax ak Sénégal fii rawatina nit ñi ni ñuy dundee suñ xoolee seen bopp xam nañ ni daraay lislaam newu ci dëgg-dëgg rek la lu fi lu fi waaye wax na nga gis ni ñuy génn ñoom lañ mën a rek ay saaga ak def yooyu te loolu benn njëriñ amu ndax kii wax lam lay wax du njëriñam moom sa njëriñ la yow ma koy déglu moom lam lay wax su ko jëfee la ciy jëriñ yow la muy wax yow soo ko jëfee nga ciy jëriñ waaye jàpp ne diw da lay kenn attaqué wu fi kenn nit ñi dëggug yàlla gi la ñuy wax te ku ko war a wax da nga koy wax yenn saa dégg ñu naan lii diw waru ko wax war a wax amul ci yàlla yeyoo wax amul ci yàlla yàlla ki mu wax loo kookoo yeyoo wax ku mu wax wut yeyoo woo wax ak ku mënti doon yàlla ki mu wax loo kookoo yeyoo wax dëgg nag dëgg rek la mën a doon kon lii ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp te it ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah